nekk nekk leen ci rek nekk leen ci rek day gën a neex rek di gën a baax di gën a sell di gën a <laughs> bàjj na rek nag waaw waaw <laughs> bu leen geesu bu leen taxaw bu leen déglu lenn lu lu lu lu di jëme ci lii fa tabaarakallaahu noo ngi leen di sant suñu borom nag mu nu boole sëriñ bi ndax sëriñ bi mi nu booleel maa ngi koy gën a sant sax si dàkk sant ko di sant sëriñ bi nag mi nga xam ne mooy suñu lépp tey moo nu fàggul suñu lépp tey suñu lu lépp lu ñuy jariñ biir ak lépp lu ñuy jariñ tey ak ëllëg lépp moo nu ko fàggul dan ko sant bu baax a baax a baax a baax ci nekkal ko ni nekkal ko ci ni mu bëgg moom bëggul dara loolu nag nag yàlla ak yonent bi rek waaw di jaamu yàlla di borom di jaamu yàlla liggéeyal yonent bi lépp te yàlla tax ndax joxoñ bi mu ko joxoñ boole ko moom amul seen beneen jëmul fenn beneen amul beneen diggante bëggul leneen waaw loolu nag alhamdulilah rabbil alamin loolu la na fi bàyyi